toute, toute jafe-jafe bu métti la dund ci ndox te bu weer dee fay métti lañ laa fayu soo ko fayul ñu ñëw ñu ñëw la gërëm bi dem see yoon te sunu ndox mënuñu fóot. dex ga la ñoo fóote yére yaa ngi nii démb lañ ko fóoti ca dex ga ngi ni ñoo tàngal ndox boo utul ñetti téeméer ñu rootal la bidong yee walla ñaar téeméer doo ko am noo dund ci jafe-jafe bu metti ba nga xam ne daanaka amunu fan ko jooyee xanaa nu jooy rekk ci yàlla ndax yàlla wallunu gan yaa ngi ñëw léegi laa doo àbbi ay barigo dégg ko pour mu ñëwee bu ngoonee ndax ñu rootal ma ndox ndax gan yi dañoo ñëw ci sa kaw di ay gan mënuloo lee seetaan ñoom manqué ndox wala di mar ngaa jaaxle fokk nga root barigo bi teg di ci liggéey root bi dong yi di jënd galaas di ci def. nun kay weer yi yëpp amuñu ko. nun la toll si juróomi weeru yàllaa ngi ni xam ne juróom benn juróom benn weer ya nga xam ne ndox amuñu ko fii ci jafe-jafe la noo dund amu amuñu ci pexe amuñu fan koo jooyee amuñu kan ko fajal xamuñu fan koo jooyee nu àndak ak sunu jafe-jafe te pay gi dafa metti weer wee juróom-ñaar téeméer fay naa ko weer wa diw yi juróom-ñaar téeméer weer waa ngi ni deexati indi la guñ ma facturati que waa waa dëkk bi fii chef fi ñu jóge si jóguñu wax nañu ba sonn toog naa fii ñu indil ma facture juróom fukki weer ak ñeent ni ma danka fay man lee dërëm duma ko fay ñu ne ma daa fay man lee duma ko fay ndax man rootuma tegalewuma facture yi facture ba ngeen mën ci indi bu dee ñëwee man maa di jóg dem fayle ko rek ñëw toog di jooy ci yàlla àq nag lañ leen di jooy ndax yéen a nga noo fayul lanu fayul lanu liggéeyul kayit ya sama benn càmmiñ ñi ko mujj nangu dem nañ fi Dagana dem nañ ca préfet fa nekk dem nañ fa kayit yooyu sax ci ba léegi fayuma ko ndax amala ma ko fayee baadoola laa aw ma sunu njaboot yaa ngi ci àll di tis si talu ñu lekk talu ñu naan sonn nañu fa fa sonn di mënti kanu dimbale nag nu jël noo ngee ñaan ci yàlla ak di jooy ci yàlla kanu dimbale nu jël sonn nanu ba fa sonn mante yam gan yaa ngi nii di ñëw dara amu fi bërki dee ma dégg ñu naan waa Dagana xamal ni woon nañu daañu indi fii euh, ndox pour def fi tiwo yoo xam ni waaye ko ka taliba la ñu wax jëm ca kaw sa tëddoo bi doyul dara mënul servi kenn servi bokkal seer gëm yàlla seer wi fële euh, kaw pëlie bu ñi amee ñii du am dañoo di tocc suñu daay facture yi bu fekkee ni ñu ngi dem ba nga xam ne ñu ngi def seen pépinière yi kooku moom dootuñu gis ndox rek dex ga la noo wóoloo di wut ay lalañ di def ci feebar yi bari biir yi dégg ko sunu doom yi sonn nañu ba fa sonn di yem noo ngi wut ndimbal ci kàttanu yàlla sunu borom kënu dimbale nu jël ca la ñu commencé manqué ndox commencement ba sax tane woon na waaye léegi moom dafa raw léegi moom dafa raw bañ nu fi indilee facture yooyu naan dañ koo fayak dégg nga ka laag arrière ba nga xam ne yow mosuloo amuloo benn weer ba nga tardé fay weer bu ci nekk da nga fay kooku buñ la indilee kayitu euh, fukki weer ak ñeent foo koo fayee amuñu ko <coughs> amuñu ko sunu doom yaa ngi ci àll bi ñu lekk taluñu naan la ñu fortaatu ñu ngi noo yóbbante dinu nu sikkur ndaxe lanu mën jàll ci kàttanu yàlla léegi nag noo ngi jooy la mën ndimbal la am xeebu nu ko bañu nu ko la nu yàlla may nu jël la nii dimbale nu jël. Euh, jafe-jafe yi bari na ceeb amul. nga di valeur la bis ma ne andaaru e, ceeb yaa ngi koo jëndee téeméer wala téeméer ak juróom ñett fukk nga dem ca marché ba ñun la ba ne jënu ñaar téeméer ñun la duñ ko jaay wala buñ la ko jaayee du la jëriñ dara nga dem ci sew ya loo ci jël téeméer bi buñ la ko jaayee yu sew du la jëriñ dara te nga di baadoo la amuloo taquloo say njaboot sonn nañu ba dem ci àll bi yore tool bayuñu xëyuñu wàccuñu ñi nga ci naag sot di taxawaalu di fortaatu ca maçon yaag yu kenn daal noo ngi sonn nañu ba fa metti man yam sonn nañ ko waaw noo ngi ñaan ndimal nag di sàkku ndimal ci bërëm réew mi ak ku mu àndal ki nga xam ni tey ñoo bokk ndey bokk baay noo ngi sàkku ci ñoom bañu nu dara xeebu nu dara nun waa buuxal sonn nañu sonn goo xam ne mënuñu ko wax waaw jërëjëf nag Référence TV, la chaîne de l'innovation.